salaamaaleykum cher internautes de Sénégo et de Kawtef ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen indil benn information en exclusivité bi nga xam ne ne euh, kii ñii di kawtef point com ñoom ñoo ko génnee donc mu nekkoon sëy bu doxoon ci journaliste bi ñuy woowee Astou Dione ak journaliste bi ñuy woowee Cheikh Yérim Seck donc nag mu amoon euh, mariage boo xam ne ne bëri na woon coow lool ci diggante ñaari journaliste yooyu noonu réseaux sociaux yi yëngatu woon ndax dafa nekkoon benn mariage bu bettoon ñëpp mais en deux mois mën nañu wax ni ki nga xam ne ne moom mooy Astou Dione Faye na gannaaw nag bi nga xam ne ne moom mooy journaliste Cheikh Yérim Seck bi génne livre am le 15 janvier 2023 bi assi Dione moom fay na le 28 janvier 2023 li waral loolu nag mooy gannaaw bi livre bi génnee pression livre bi ak ñi nga xam ne dañ ko doon pointer aussi du du doigt Astou Dione dafa jël temps def ay enquête ci li nga xam ne moom mooy livre bi mais aussi def ay enquête ci li nga xam ne ne moom mooy euh, journaliste bi ñuy woowee Cheikh Yérim Seck mu détenir nag ay information yu doy waax ay preuve aussi donc mënatul woon toog elle a décidé de quitter euh, le domicile conjugal donc nag xam naa ni dinañ ci ñëwaat ci yeneen euh, fànn pour mu ñu gën a xam exactement yan yan preuve la ki nga xam ne ne moom mooy Astou Dione niir ba mu jaral ko mu génn li nga xam ne ne euh, moom mooy ci sëy boobu noonu